ku wérul lu liggéey ba am lu muy jox njabootam ku wérul du jaamu yàlla kon nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla def naa di ci am tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy siiw seen seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax di leen fàttali yéen ngi seen programme fagaro comme ni ngeen ko xame nag ñu siy dalal professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga Bio nekk fële diwaanu Kër Massar nekk tradi praticien professeur Ousmane Ndiaye nag ñi nga xam ne dañ koo bëgg seeti ci cabinet am mun nañ koo jokkoo moom ci numéro bi nga xam ne moo nekk ci écran bi ngeen di gis yi euh, ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen nag euh, di leen ñaanal tam xam naa at mi ñu waaj a dugg tamit <laughs> ñu ñaan profito ci hmm. ñaan mu nekk atum euh, jàmm atum hmm. sutura atum teraanga muy 2024 bi hmm. yàlla na dàq fuuf deux mille vingt trois ak yeneen yi féete ginnaaw yëpp yal na leen dàq ci barke yoon saa salaam yàlla mën na ko yi jàmm fi nekk yal na ko fi yàlla saxal boo ko fi yéene leneen lu dul jàmm yal na yàlla wëlbati sa xol ba def si jàmm yàlla indil boo xam ni njiitu réew bi gën ci njiitu réew yi la mhm. daal bëgg réew mi di ko xëccoo ki ci gën ci réew mi gën cee baax yàlla moo ko xam dëgg dëgg nag yaakaar na li ñeme yàlla moo xam mhm. yal nañu yàlla indil kooku mu falu ci barke yonent bi sallallahu euh, ñuy sant yàlla tam ci may gim ñu may tamit deux mille vingt trois bi ñu dund ko ba mu jeex. Mm-hmm. bay waaj a waxi deux mille vingt quatre am na ñoo xam ne ci biir deux mille vingt trois bi tam lañ lañ demee. waaw moo tax loolu ñu ciy sant yàlla bu baax a baax. professeur nag tey ginnaaw ba ñu la nuyoo ziar la euh, dañuy ñëw ci feebar bi nga xamante ni wala bokk mun naa ni conséquence su xëy na yeneen feebar wala yu demee noonu mais daal jafe-jafe bu doomu aadama yi di am la ci wàllu wér-gu-yaram. Mm-hmm. muy fissure anale. Mm-hmm. fissure anale tay lañ bëgg ginnaaw ba nga nuyoo nit ñi nga wax ñu moom euh, lan la exactement lan la ñuy wax fissure anale buñ jógee ci loolu euh, dinañ ñëw tam bëgg nga leeral ñu maanaam lan moo koy jox doomu aadama yi mhm. ak yan jeexital la mën a am ci seen euh, wér yaram kon professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape ñu ngi lay fay di nuyu yow di la di nuyu mbokku internet yëpp di leen ziar comme ni ko waxee rek di baal àq ci année bi nga xamante ni mi ngi jeex mhm. leen ñaanal 2024 euh, année mu nekk année bu réussir. année mm. boo xamante ni ñëpp a ci wér gi yaram. Mm. xaalis bu bari. amiin ak njaboot gu barkeel. amiin ak it fekkee waat ko ay at i at i at tamit. amiin yaa rabbi ni ma ko waxee woon rek ni ko sama papa de waxee bu naree 2024 bi daal bu naree ñaaw. Mm-hmm. na dàq deux mille vingt trois. amiin yaa waaw parce que nee na doo wax ne na mel ni deux mille vingt na deux mhm. neexul ci ñoom. Mhm, waaw ñu jàll waaw. <laughs> waaw loolu yàlla mel ni boobu. yàlla waaw bu naree ñaaw. Ah. yàlla dàq bi yàlla na ko dàq. waaw dëgg waaye boo bul ni bu mel ni namee ñaaw yàlla mel ni bii moom. Mhm. dana kenn du ko wax. dëgg la waaw kon ñu ngi sant ñëpp. Pape di ziaraat mbokk yëpp. Euh, fissure anale nag. comme baat bi ñu mu tekkee rek boo ko doon tekki. da naan euh, nit ki fi muy demee toilette. Mhm. muy anus bi. waaw euh, maanaam fi toilette yi di génnee. Mhm. day am fett fett. Mhm. am genre benn xar-xar boobu wala benn dagg-dagg. dañuy wax fissure anal. d'accord d'accord comme ni miir di fettee noonu rek. exemple nit ki fi mu demee toilette. mu dagg noonu def benn dagg ci euh, paroi extérieure bi. ci suuf rectum bi daana en général loolu la ñuy wax euh, fissure anale léegi hmm. nag fissure anale boobu nag hmm. waaw dafay metti ndax euh, fet fet boobu day saf hmm. nekk loo xamante day metti parfois donc loolu nag euh, jàngoro la boo xam ni am nañu moo sonal ñu baree bari da leen di daal da leen di sonal te waaw Mhm. dafay metti aussi. Mhm. donc loolu daal en général ci mhm. ci définition. ci gàtt pour mu mën a nit ki mën a comprendre. lan mooy fissure anale. mooy fi muy demee toilette. mu am benn dagg-dagg bu fa nekk. waaw loo xam loo mel ne dagg-dagg bi day mel ne dagg-dagg lañ set daan def noonu. donc noonu lay def loolu mooy fissure anal. Hmm, man su dee dégg naa man li nga wax. Mhm. si sama dégg-dégg bu gàtt. day mel ni bu doon gémmiñ la day mel ni sofe. waa kay tuñ bu xar tuñ bu xar waa kay tuñ bu xar rek waa kay mi jeex na. noonu lay mel boobu gën a gaaw nekk <laughs> waa kay waaw noonu lay noonu lay demee comme tuñ bu xar rek. gis nga ni muy mel noonu fett lay nekk fett muy fettee noonu mm. léegi nag fi ngay demee toilette nag bu fekkee foofu la amee mm. loolu la ñuy wax fissure anale mm. donc noonu lay loolu dina metti parce que ñaara tuñam fett ñaara du mën a rees waaw kay waa gis day metti waaw bi te ñu fett mu day metti foofu tamit foofu tamit noonu lay fay demee d'accord léegi nag loolu moom lan moo koy jox doomu aadama euh, waaw li koy joxee bëri na paap mais principale cause bi rek mooy seere seere constipation waaw. seere meen waaw seere bàjjo bi <laughs> xam nga seere moom. Mhm. Eh, ñun moom bu dee ñun eh, nit ku ñuul wala africain peut-être da nga naan defuñu ko problème defuñu ko feebar te la wax na toujours ci ma wax ci vidéo yi ni mhm. tubaab ñaari feebar la gën a ragal. Mhm. muy constipation seere. ak soj. te ñun yooyu moom daanaka defuñu ko sax muy feebar. waaw parce que li muy indiwaat ci doomu aadama bi moo moo moo donc da indi mooy ndey ji feebar rek baanaam man nga di wax loolu. donc booy seere mën mm-hmm. eh, na la feebar yu bëri. Mm-hmm. donc moo tax feebar boobu eh, constipation boobu. Mm-hmm. bokk na ci cause yi nga xamante ni moom day joxe eh, fissure anale. d'accord surtout waxoon nañ ko ci bi ñuy def hémorroïde. nit ki buy dem toilette. muy bañ di onk. bu ñëwee ci prévention yi dañ ko wax. onk boobu nga xam day forcé fekk dafa dafa serré. buy dem toilette onk di ko pousse noonu. bokk na ci li war surtout fissure anale. donc kon cause yi bi ci njëkk principal bi. Mhm. mooy constipation. constipation mhm. serré. surtout li ñuy wax constipation chronique nag. Mhm. boobu moom moo gën a bonadi la mooy différence constipation ak constipation chronique. waaw nit koo xam tam waaw constipation xam nga nit ki mën am constipation yu ndaw ñii rek. bu yemamaay bu yemamaay wala boo xam ne de c'est passagère mën na nekk ñaari fan ñett. jeex na mais am na koo xam ne moom daanaka mën nga ne ci constipation la dëkk. Mm, ki ki seer fu mu tool waaw fu mu tool mi ngi seer ba pare di nga gis koo xamante ni danaan trois jours mm-hmm. du dem toilette mm-hmm. nga dañ naan la une semaine duñ dem toilette xam nga yooyu moom dafa ëpp mm-hmm. donc loolu la ñuy wax constipation nga dëkkee ko nag presque la ñuy wax constipation chronique na constipé mais constipation mu dem quelque temps rek mu daj mais am feebar la c'est vrai waaw maanaam yàpp nag constipation da leen a yàpp seere da leen a yàpp donc loolu la ñuy chronique yooyu nag c'est à lu baree bëri bari donc moom loolu bokk na ci causes yi. Mhm. bokk na ci tamit ay hémorroïdes. Mhm. hémorroïdes mën na ko joxe waa mhm. surtout hémorroïdes externe. def nañ ci vidéo. boo bëgg a mën na demaat ci vidéo yi moo seetaanaat ko. am pap li ngay wax rek toujours nit ñi dañ ba tey rek am na ko di ma laaj euh, defe naa dafa am hémorroïdes yi bëggoon saafara man ko def nañ ci vidéo c'est-à-dire que toujours nit ñi dañuy laaj toujours moom benn vidéo da nga gis koo xam ne tey lay commencé chaîne bi seetaan benn vidéo woo la. Mm, <laughs> yéen wax la jàngal waaw. <laughs> te seen boobu yëpp nekk ci moo ci nekk. toujours ñu wax ko mais daal doo comprendre waaw. Mm, mm. nga gis ñoo xam dañ lay woo léegi léegi ni la tey laa tey laay doog a seetaan sa vidéo maa ngi nii di ko seetaan. léegi dama am jàngoro nangam bëggoon ci ay tegtal. mais eh, def nañ ci ah, vidéo nga di wax rek dem leen ci vidéo toujours loolu laa leen di wax toujours loolu laa delloo laa leen di wax même bi def nañ ci vidéo boppam waaw kay def nañ ci vidéo boppam ci bëgg xam yi muy indi yëpp yu bokkul ak lii nga wax nii waaw mën nga ko seetaan mën na ko seetaan hémorroïde bi tamit def nañ ci vidéo boppam mhm. donc yooyu yëpp dafa dafay indi ci mhm. day indi problème ci wàllu fissure anale mhm. donc accouchement ci jigéen ñi am na quinze pour cent maanaam boo jëloon téeméeri jigéen tey ay lii fukk juróom yëpp bu ñuy am fistule anal mhm. ci accouchement la gi amee maanaam ci am hmm, doom maanaam bu ñuy am doom am ñoo xam ne ginnaaw bu ñu amee doom la ñuy mhm. amee fistule anal hmm. donc bëri na si jigéen ñi ci bëri foofu lañ koy amee kon moom bokk na ci yi nga xamante ni dañ koy da koy joxe mooy fistule anal bokk na ci tamit les maladies inflammatoires au niveau de l'intestin mhm. maanaam feebar yi nga xamante ne ci feebaru butit yi lay nekk butit yi lay nekk ay mbàq yeeg yooyu waaw genre feebar yooyu tamit mën na bari nañ quoi jëruñu koy lim. Mhm. bari nañ yooyu tamit mën nañu. Mhm. causer mën nañu joxe mhm. fissure anal. donc général daal yooyu mooy yi nga xamante ni moom. mooy joxe fissure fissure anal. d'accord xam naa tam comme day du constipation la xam naa. <laughs> waaw <laughs> xam naa man su ma ko doon tëjee dafa naa lekk màdd di woon xoox yi. <laughs> waaw boobu tam dina ko a joxe. Mm-hmm. loolu mooy yi nga xamante daal moom moo koy euh, causé de manière générale mais bi ci ëpp doole waaw mooy seere mooy seere waaw ah, surtout comme ku dëkk ak seere ku dëkk ak seere surtout waaw mm-hmm. boobu moo ci gën a léegi nag bëggoon nañ xam nag loolu nag léegi yan jeexital la mën a indi nit ki mm-hmm. wàllum wér-gu-yaram sur anal boobu ndax am na yeneen conséquences yu mën a indi euh, ci fin bi da nga ñu ko nag maanaam ndax dina wér ak du wér waaw mais question rek dina wér ak du wér d'accord ginnaaw bu ñu waxee jeexital yi jeexital yi waaw bala ñuy ñëw ci jeexital yi ñëw ci symptôme yi rek en ko nit ki mën a xamee daanaka sax euh, nit ki moom bu amee fissure mhm. rek dina ko xam mhm. donc loolu bokk na ci mais du ci mhm. bëri euh, mën nit ki mën na dem toilette euh, muy muy metti maanaam bu demee toilette ba pare suuf kii di metti mu demee toilette di metti di wala mu mel ne luy tàng wala yu demee noonu donc loolu mën na ci bokk donc mën na am douleur métti métti buy dem toilette mën a am tamit euh, fi fissure anale bi nekk mooy anus bi fu mu nekk maanaam euh, buy dem euh, toilette aussi mhm. wala même bu demee toilette ba pare wala bu demul toilette tamit maanaam suufam bi fi mu demee toilette mhm. di xasan mhm. loolu tamit mën na bokk ci signe yi waaw fi muy demee toilette di xasan mën na bokk ci signe yi mën na bokk ci tamit muy dem toilette parfois muy génnaale deret di saali tuuti deret xam nga fu fett moom fu xar mën na na deret mën na naaj donc buy dem toilette mën na mm-hmm. saale dret mën na génnaale day mm-hmm. xaw a mel ni tuuti foofu comme hémorroïde rek mm-hmm. donc en général yooyu mooy signes yi nga xamante ni moom lay joxe ci ki nga xamante ni moom la moo ko amee léegi bu dee jeexantal yi nga doon laaj nag moom bëri na ça veut dire que tey nit ki mën na am euh, euh, fissure anal dem ba mu jural ko hémorroïde mu mm-hmm. ne mën na ko joxe. mais tamit nit ki mën na bañ a am hémorroïde. Mm-hmm. am fissure anale. Mm-hmm. léegi dem ba fissure anale boobu indil ko hémorroïde euh, hémorroïde. donc loolu bokk na ci complication jeexital yi mu koy def. mën a dem ba indil ko infection. surtout bu fekkente ni daf ko xaw a négligé bañ ko faj. ba mu jéggi deux mois trois mois donc mën a dem ba indil ko infection. donc gis nga mën na dem tamit ba indil ko li ñuy wax chirurgie. maanaam opération. donc bu demee infection mën a indi état boo xam ne. foog faut ñu opérer ko donc yooyu yi ay conséquence lay nekk yoo xamante ni. Hmm. mën na mën na hmm. indi jafe-jafe. Hmm. donc yooyu daal mu jeexital yooyu lay lay gën a indi. am na ñoo xam ne sax mën na dem ba indi leen problème mu toog duñ mën a toog carrément. waaw fi mu ne position position bi waaw. te feebar la boobu dafa bokk dafa mel ni ci jàngoor yi nga nit yi day am keer say des fois bëgg nit ñi xam ko. nit mën na ko am di ko sooxal. da koy rus a waxee. wala mu rus koo faji parce que fi mu nekk moo xaw a day gêné moo xaw a gêné waat loolu bëri ci Pape semaine bi rek recevoir naa ñett ñoo xam ne par téléphone mhm. ñi naan ma ñi ngi koy wax naan ma dañu am jàngoro yoo xam dañ ko ko wax ci vidéo bi moo tax sax ñu koy wax mais dañ koy nëbb mhm. cest mhm. du ko nëbb oh, parce que boo ko nëbbee eh, du am saafara da nga koy wax c'est-à-dire dañ li mag ñi dañ ko daan wax sax ni jàngoro dañ koy siiwal cest à boo ko siiwalee dinañ la wax ni la ah defal nangam defal nangam. Mhm. wala ñu la demal dëkk nangam wala demal dëkk nangam. Mhm. wala demal hôpital nangam wala gisal docteur nangam. Mhm. wala jëndal garab nangam. xam nga yooyu yëpp boo ci defee yàlla mën na ci indi saafara. bien sûr mais boo nee pat ak moom. waaw du am solution. vraiment <laughs> vraiment vraiment. <laughs> loo fajul kay du wér. voilà parce que loo ko nëbb nëbb nëbb kii nga seeti fajkat bi moom doo ko nëbb sa bopp. waaw parce que boo xamul boo xamul li la daal du la mën a faj. du mën a faj voilà. même même même bu fajkat bi sax ñi mm-hmm. lay jege sax yenn saa am na nit koo xam ne war nga di mën di waxtaan ak moom mm-hmm. mu lay conseil di la wax yu demee noonu mais daal ñun Sénégal daal dañuy nëbb jàngoro de trop waaw dañuy nëbb loolu baaxul quoi waaw kersa gee bari nag mu xam naa moo tax surtout bu mel nii waaw feebar yi nga xam ne day nekk ci partie intime yi mm-hmm. nit ñi dañ koy rusa des fois di dañ koy dañ koy rusa di ba dañ koy sooxaale te loolu baaxul dañ koy baaxul loolu baax na. Mhm. Mhm. kon loolu yaakaar naa leer na xam naa professeur. Mhm. Euh, li ñu koy tëjee question bu mujj bi mooy ndax feebar buy wér la wala. Ah, waaw day wér moom. waaw day day wér moom macha allah. d' d' accord kon boo fi amee loo ko bëgg a tëjee. nga tëjee ko ñu jox rendez vous ñi ñuy suivre. ba ci deuxième part bi comme day wër léegi solution yi. solution yi ah prévention déjà ba pare pour ñi ko amagul tamit ñu xam ni comme day dale. nan lañ koy moytoo pour mu bañ leen dal. ñi mu dal nag su amee ay saafara yoo leen mën a recommander après ñëw ci deuxième partie. deuxième partie waaw li ma ko tëjee xam naa du ci vidéo bi sax mais benn témoignage bu ndaw rek ma ko permettre. parce que aussi ci ci ci jàngale vidéo yi la bokk. Euh, démb dafa am ku ma woo. Euh, di ma wax ni garabu tension bi. dafa baax. dama koo jaay Ziguinchor dañoo boole woon ak moom ma jox ko. mais li tax ma koy wax nii nag du question que pour publicité garab bi wala dara mais dama koy wax pour. ñeneen ñi nga xamante ni xëy na loolu dal na leen ñu essayé ba xam. Mm-hmm. parce que moom nee na dafa amoon cataracte. Mm-hmm. saa bu demee pour ñu opérer ko ñu ne ko tension bi mooy mm-hmm. léegi nee na bi mu jëlee garabu tension bi mooy bi ma ko jox. waaw nee na bi mu eggaatee ci médecin bi nee na waxu ko sa dara sax ci affaire tension bi ba opéré nañ ko pare. waaw maanaam sa garab bi dafa baax ba démb rek jaayaat naa ko ci. donc pour pour li tax ma koy li tax ma koy leeral nag. kon xëy na ñi amul cataracte war a opéré wu ñu mhm. essayé ko quoi xool waaw yàlla mën na leen a mhm. parce que tamit dama gis ni am na ñoo xam dañu am cataracte mhm. euh, tension boobu tax lu ñu leen opéré ba ñàkk seen bët bañ jaaree fa ñàkk seen bët donc loolu tamit bu fekkente ni tey nit defa na la ci témoignage bu mel noonu boo ko baaxee ne ni mën na am tamit ñu ñëw essayé xool ba xam yàlla lu muy dogal mën na réussir loolu kay moo jar <laughs> lu baax la lu baax <laughs> lu li bon kay mooy publicité lu bon <laughs> waaw gaa ay mees ak ay xeesal kay kon nga amee garab buy faj kay publicité ko loolu farat nga boo ah, waxee sax noonu day ni da nga bu fekk nga waa kay waaw pour jaay bee tax nga waa kay waaw mais demeewul noonu c'est-à-dire résultat bi ci kooku am waa euh, patient la dañ ma boole woon ak moom sax te ki mhm. ma boole moom sax moom it wax dëgg yàlla xaw ma ko mosuma ko gis mais dafay wute boole client yu bëri ndax ma ko traité woon garab yu baax daal. ndeysaan donc moom it muy dem ba dalay boole ñu bëree bëri. waaw loolu loolu résultat la da ciy da ciy baax quoi. waaw hmm. ah, boobu sax mooy mooy bëri publicité bu baax. waaw nga jëflanteeg nit mu am satisfaction. Hmm. satisfaction gis keneen ko am même problème mu ne ko demal ci diw. effectivement publicité bu a hmm. a wax na de. waaw ah, macha nag. léegi nag li tax ma koy wax nit ñi mooy ki amee cataracte xëy na mm-hmm. te saa bu demee ñu ni ko tension bi mooy yéeg mm-hmm. léegi na essayé garabam xool ba xam mm-hmm. <laughs> nga moo tax euh, yafam yoo xam dafa baax ñun ñi di ko xam parce que day am ay link dafay am ay connexion ay link waaw léeg-léeg nit dinañ ko war a opérer si lenn tension tax duñ ko ñu koy jox rendez-vous pour jox ay garab tension pour tension bi équilibré tension bu yéegee ñaari sa médecin duñ saw duñ la laal waaw effectivement duñ la laal loolu tam c'est très important loolu. effectivement voilà. loolu yaakaar naa. en bon entendeur. voilà ku ko dégg. fekkee concerné na la nga xam ni nga war a def ku ko dégg tam bu la concerné wul te nga am keneen koo xam ku mu concerné. nga partagé ko tamit information parce que information bu baax. moom la ñu war a partagé. yeneen information yi ku ko ku ko ku ko jot nga dëgg baal bi. information bu baaxul. ku ko jot moom na yem ci yow. information bu baax na ku ko jot da nga kaa war a siiwal. siiwal loolu lu baax a baax la. Mm-hmm. kon professeur ñu ngi lay remercier. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, ci disponibilité bi ak euh, vraiment partage bi. Euh, xam-xam bi ak tamit laaya biir bi ñuy la bi ngay laaya biir doomu aadama yi. ñuy ñaan yàlla rek yàlla la yàlla defal. amiin amiin ñu bokk ñun ñëpp xéewal ak sutura ak teraanga. amiin ñu bokk ñun ñëpp. voilà léegi nag ñuy jox rendez-vous ñuy seetaan kon. ba deuxième partie ba dañuy ñëw ci prévention. ñi bañ a am fissure anale. nan la ñu war a comporter woo. ak ñi nga xam ne am nañ ko. yan garab moo leen mën a faj fii ci réew mi. d' accord incha allah jërëjëf jërëjëf merci.